demam nga umpuna mindeef te um na boppub kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne xiim sëñ Ousmane mi moom la sëñ Amadou Maxtaar waxoon dajale njabootu guy mbind gi gi daara Xuddoos ñu def benn commission boo xam ni ñooy taxaw màggal ñu def ko nag bañ ko defee nag yàlla def ñoom ñu tànn ma jiital ma ci bopp commission bi sëñ amul maxtaar tam biñ ci demee ci moom waxtaan ak moom daf ne ne ko njabootu sëriñ Tuubaa gépp yëg loolu moo taxoon wër nañ njabootu sëriñ Tuubaa gépp yow nag ak sëñ amul moom yëf yi ndax mm, sëñ Baar ak Cheikh te bu ñuy constitué bi tam sëñ Baar ak sëñ Mour lañu wax kon demal nañ la ci njabootu sëñ Tuubaa yëpp ak cheikh yi am nañu ci dem dem nañ waa kër maam Cheikh Anta sëñ waa kër maam Mor Diarra bi loolu amee itam xam nañ ne centenaire muy téeméer loolu loo xam ne ni luy luy luy duñ ko mën a am nit parce que du ko am ci ñaari yoon ndax téeméer boo ko boo boo ko fekkee boo balaa beneen ñëwaat boo wut doo ko fekkee loolu moo tax sëñ bi ne comme que ci màggalu sëriñ Touba la nga xam Cheikh Moustapha eh, jëmbat te nekkul ludut bis bi sëriñ Touba wuy see borom fii ci Touba sëñ bi waxoon ne moom bis bi ku gën a neex bis bi mu gën a bëgg mooy bis bi muy daje borom ba tax sëñ Mourou Moussa doon def màggal googu màggal gi nag dara xuddoos lañ ko fóotali waaye sëñ Touba ko moom léegi bi mu ñëwee ba ci bi nag sëñ bu bëgg nag centenaire bi nekk loo xam ni day day marqué nit ñëpp yëg ko ñu xumbal ko fu ne bañ génnee ci liñ ci war a génn ci génne ci baax baax sëriñ Tuubaa yeeg jaar-jaar yeeg ak ñi mu àndaloon liggéey liggéey ba ba mu agsi loolu daal mooy li nga xam ne moo tax a jóg ñëw ci yow sàkku ñaan ak xalaat euh, ndax jéego buñ jéego rek yow yaa jëwri suñu amoon waxtaan jéego buñ jéego rek yow lañ ko def waaw loolu daal mooy suñ suñ suñ suñ kii ñu bëgg jottali rek ay kàddu yoo xam ni da bàyyi ko ci bàyyi Ahmadou Makhtar jëm si sa jëm ji ak njaboot gi ndax xam nañu ñaari kër yi benn lañ yaakaar naa ni lu jiitu li yónni nañu sëñ Ousmane ñoo ñoon ci yow sëñ bi wax la li mu bëgg ci bis bi moo waral suñu teewaay nii ñu ànd ko ak ñoom bi ñu demee tam ñu xam ni lépp benn la kër Cheikh Moustapha ak kër Cheikh Mahamadou Lamine Bara dañoo fab cër bépp delloo la ko fab sax njabootu bopp gi jiital leen ci kaw ci kanam loolu nag lañ ci jublu mooy li sëñ Cheikh wax xam ne sëñ Abdou Makhtar yaay jëwriñam moo waral ñu fab lépp delloo ko ci biir loolu itam sëriñ bi eh, xam la ni ginnaaw ku tedd ki bim ñibbisee Tuubaa lii mooy téeméereelu at bi mu laaj li ñuy olof yi wax taxaw seetlu maanaam def am njàngat ci sëñ bi ginnaawam téeméeri at yi li mu jur ak njariñ li ci nekk loole nag ngir def ko nee na fokk ñu yaatal ko yaatal ko ci njaboot gi yàllal ko ci cheikh yi yàllal ko ci taalibe yëpp ànd ko ak ñoom moo waral euh, ñu tàmbali am na ci ñun dem am na ci ñun demagul waaye niñ ko bëgg a defee mu digle ko noonu nee na dafa bëgg ñu def ko ci raison yi maanaam lu comme dafa jàmb euh, mu xaw a xat lu néew néew ñu def ko ci ñetti raison ndakaaru ci Masaalikul Jinaan waxtaane sëriñ bi ak njàngaleem ak lim bëggoon ci nit ñi te mooy nit ñëpp mel ni moom loolu la bëggoon dem Louga def fa lu mel noonu jàngale maanaam ñi wutu sëriñ bi li ñu ko liggéeyal ak li ñu ko yaatalal ci lislaam bi ci yar ci njàngale ci wàllu dimbali ak fànn gu man ni doon ñu jàngat ko ba nit ñi xam ñi wutu sëriñ Tuubaa li ñu ko li ñu ko jàppale ci liggéey bi ñu ñëw jaare foofu itam am na benn xutba bi suñu mos mujj def ci digganteem ak taalibe yi 1346 ci hijiriya moom it discours boobu nit discours boo xam ne àddina bi mën nañ ko mën nañ ko jëriñoo ku ci sax mën nga caa jëriñu moom ñu jàng ñu jàngat ko xool ko bu ñu màggalee ba ci suba nag def benn synthèse boo xam li ñu ci loolu loolu daal mooy li nga xam ni mooy li ñu ko bëgg a defaree li sëñ bi digle léegi nag lépp luñ ci def ginnaaw yow yaay jëwriñ ji euh, loolu moo waral ñi nga xam ne sa njabootu bopp la ñu fab leen jiital leen ci kanam topp ci seen ginnaaw ñoom ñëpp te noonu la neexee mboolem ku nekk Daaru Xuddoos ñu ànd ko te loolu cir buñ la jox la moo waral bi nga xamee ne jox nañ digal itam ñu ànd ko ak ñoom fas yéene ko te ànd ak ko bëgg sëriñ bi mu mu Cheikh Abdou Mokhtar ndax lii lu rëy li fi noonu eh, ndax eh, moom moo wol boppam téléphone yëgal ma ko mu rëy ci nun lool nag te jomb na nag hmm. waaye nag jomb ndax suñ baraa tax mu di ko def du man waaye dama koy rafetlu te yàkkamte woon ko lool nag ndax eh, dafay mbir moom xay na tey la ko yàlla dogal waaye màggal gi bañ tàmbalee la waroon toll ni war a toll ba tël ba ba weer suñu nekk sax xëy na ginnaaw eh, ren la téeméeri at bi eh, sëñ bi xalaat lii génn ko jox leen ko ngeen ko war koo leeral leen nit ñi dañ sant yàlla bu baax te di leen ñaanal ngeen am ci ndam sëñ Moussa yàlla na ci am ndam lu jiitu liñ ndam lañu amoon eh, am daal noo koy lu te sant yàlla yàlla boolee ci ñu koy wax ñu lay rapporté ci ay ati ati ati at yéen itam ñu leen ñaar yéen itam dooloo bi leen dooloo tànn leen su ma dafa leen itam ma leen wér te nekk boolem yoonu mu rek boolem jullit ñi liñ ci yaakaar ci bëgg daal yàlla bu a tas barke sëriñ Tuubaa san nañ baax kàddu nga wax doon ni sëkk waaye nag jóori ñu fekk jotaay bu jotaay bu ñu waxal sëñ bi te yëkkati kàddu wóor daal li nga wax léegi rek eh, fekk nañ ko moom daañu ko fekk waatam de donc sant tey gërëm te ñu gën a sant sëñ bi nag moom xalaat bi mu génn ak yéen yi am sëriñ bi yal na ko yàlla mottali barke sëñ Tuubaa tal bi yëpp sëñ Tuubaa ñu jox ko yi nga war ko toppatoo yéen am ndam fa ngeen demee yàlla ñoo ñu am dam yàlla ñëpp am ci ak yokk bu ñu yëg ne eh, réew mi adduna bépp waaw yàlla dafa jàmm te it eh, suñu borom lu nekk mën na ko la mën a nag mooy li ngeen di jëg li ko yëkkati woon xawma sax na mu bëgg nañ bëgg ñaan mu toll xanaa daal na dem daal ba su ba ba ba daal ñëpp jëriñoo waaw waaw hmm, ñëpp jëriñoo te yàlla ñu koy dégg yàlla may leen ak dégg ak dal ak xel mi ko mën a jàppee mën koo jëfee barke Sëriñ Tuuba yàlla defal ndam وصل للحق من الحق المبين لي خادما بان وما ليس يبين demam nga ump na te um na boppam kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñemu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk